maa ngi lay bëgg. waa di la ziar am nga jàmm di am jàmm bu baax barke alxuraan karim hmm. di ziar àdduna xam nga di leen jox seen wàccuwaay quoi. di leen wax ne gëj déggante et puis nañ gisee. bien sûr voilà yàlla def na loolu. loo ne da ngaa ba làmb ji wala da nga génnoon réew mi wala. mais làmb ji boo ko bàyyee kër ga day saxaar te làmb làmb ji kenn mu ko bàyyi ndax xam naa la euh, promoteurs yi ñooy am na lu ñuy démarché. am na lu ñuy démarché ak man. xam nga am na dégg affaire yu bëri daal mais dama toog benn place di déglu di entraîné wala def sama affaire ku ñu lay démarcher fi mu nekk nii. bari na loolu bari na loolu loolu bari na sama am na ñu koy dox. waaw wax nga dëgg ak Bathie gis naa ko keroog sunu làmb ñu wax. mais loolu dina neex de. waaw combat Bathie am na ñu koy dox mais ba tey wax hmm. ñu ko bëgg mais ba tey ba tey mais est ce ne nii pare nga pour tey bu ñu ne woon avance baa ngi nii nga jël ko pare nga pour bëreeg Bathie est ce est tamit pare na physiquement tey ngir bëreeg Bathie ah mais yow baat bi mooy ba ma ba ma paree baat dafa yàgg. Hmm. ndax premier combat bi maa ko daan. comme man pare naa ak moom. maa ah, moo tax bii la mu war a leer kon danaa ko ñu ne at bi jox ko jox yëkkati loxoom de. waaw mais après dañ ko mujj kase. ah verdict boobu ah verdict dañoo bëri ba bëri ci kaw air bi. yaa ngi moom waaw xam nga loolu gis. bëri di bëri ba bu fekkee benn calambeer. waaw xam nga calambeer ngelaw la. calambeer de ngelaw la. waaw nag mu ngi mel ne làmb ji fi amoon daaw bu ngay andiwaat. verdict ba tey ndax loolu ku ne xam na ne am na ay yooyu ci bari moo tax moo tax bii nii dina dina doon loo xamante ni waa diaspora bi ñoom toldoo ay lépp gaa yëpp gaa yëpp xam nga sama gaa yi ñoom ñoom gaa yi nekk Espagne ñi da jeex mais nga xam ne bàcc dafa mën mën a bëri no man bëree tax ñu ñu war daje yéen ñaar ci wàllu bëri koo yaakaar moo raw ah moom mën na maa raw nag waaye man xam naa ne bu may rawee tamit ay cas la may rawee ay cas waaw <laughs> moom ëpp cas la la woon nañ na jël cas yi ah. ndax moom dafa bari euh, ci mbir ci wàllu bëri ci surtout boo leen ci wàllu suuf boo leen demee ba ca suuf moom foofu dafa mën a affaire mais man nag comme yàlla daf ma dimbali ma def gréco-romaine toujours damay ma koy xaar moo tax suñu dafa xaw a dafa a neex te fa koy xaar saa yu ngeen fa yeggee eh, coow am coow day daal waaw parce que xam naa ne xam naa day bëy te dama damay saraxe bëy te bëy dafa bëri coow maanaam yéen ñaar seen combat saraxu bëy la ay rawan la buñ rek mooy loolu waaw suñu baaba mais terewul am na ay xale yeneen yoo xam ne ñu ngi lay ñu ngi lay dox di la wër. waaw waaw dëgg la xam nga tamit booy. ñoom parce ay Laurent ay Laurent mu ngi wax euh, kële ak beneen xale bi dëkk euh, Géejawaay bu Siteu. waaw mais xam nga ñooñu ñooñ ñëpp ñoom ñëpp ay mbër lañ. waaw nañ nañ xam seeni morom. seeni morom waaw. parce que man du ma fi ñeexum ñeexum kenn boo yooyu du ma seen morom dama leen raw fu bëree bëri bëri ba bëri. Laurent Ndiago doo morom. mais parce que xam nga ma toll ñoom. man li ma tolloog ñoom li ma tolloog ñoom moo tax li ma tolloog ñoom moo tax ñu yaakaar ne man seen morom laa mais mais dépassé naa ko comme lan la romb naa foofu dafa am loo xamante ni nit nit bu tolloog yow rek moo tax Tyson moo ne mbër bi yomb na waaye bëri moom moo jafe eh, Tyson daan na ko wax waaw daan na ko wax te loolu mooy dëgg dëkk mbër yomb na mais bëri moom mooy jafe te Tyson daan na wax moo boobu kon nu nañ xam seen i morom mënoo bëri benn commande dafa génn numéro 2 am na am na xam ne respect la xam nga booy mënuñu wax ma bëri ñoom. non non non mënuñu wax ba. kon Laurent lu ñu la mën a fay doo lekk xaalis doo lekk xaalis. du ma bëri ñoom du mënu ma bëri ñoom booy du ma bëri sama rakkaat rek seen morom te Fass yoo xamante ni ñoo toll ak ñoom su ma jëlee combat yooyu booy yooyu mën ma mere. maanaam yu nekk ak yoo nekk biir écurie Fass. ay ndaw nañ jël booy yooyu booy yooyu nekk fa bu jëlee booy bu ñu daanee ñaar sax ma mën a ñëw mais jëluñu ci mbëru Fass bëriwuñu ak mbëru Fass léegi ñu bëgg ma dajeeg ñoom loolu lay métti quoi mais mais bu xewee te bëri wala mbër faas daan ko moo mën a jëri revanche bi lamb dafa am yoon wàlli yaan déggoo ko xanaa wàlli yaan kuy wàlli na leen bëri waate keneen daan leen man dinaa taxaw ne booy balaa moo loolu mooy lamb lamb dafa am règlement boo xam moom lay doxee mais léegi lamb ji dafa jaxasoo te man lamb rek laay wax di wax benn kii nag euh, Gaston di ko wax ne Gaston waaw na ko fan yi ànd nag Macky Sall dem Dubaay dama ko dégg xam nga Dubaay xam nga fan. waaw dama bëgg buy demati. Hmm. mu xam ne ñun suñu culture mooy takk juróom-ñaari sër ak juróom-ñaar. fekk fi Macky Sall nekk ñu def ko. ren di seeg. waaw ren di seeg ndax rapport yooyu lañ fay rap. ñun lañ fay bàq ko ëpp jëriñ. Ah, maanaam daal bu ñu demati ñu yóbbu leen bu ñu comme ni ñuy yóbboo rappeurs yi. rappeurs yi leen yóbbee noonu ñu ànd ak président. ñun war nañu mën a yóbbu ñu takk suñu sër. wala bi gàng takk juróom-ñaari xeex yóbbu yëngal dëkk bu ñu xam ne lii mooy suñu culture suñu culture war ñu ko nëbb dañu ko war wane xam loolu lañ koy ñaan et puis mu wax àdduna bi yëpp dégg ko te gars yi def si ay ay commentaire mais beneen bi ma lay laaj xale kooku moom it mu ngi daan bëreegul benn ko bëri na ay combat muy busita boo yee dégg nga mu lax ak man ma rox ñemewu mais xam nañ ne du naa caay-caay boo xamante ni duma maa leen mën fopp du ma seen morom ñoom daal nañu xool seen li ma la wax rek nañu xool ci booy faas ndaw yi jëm ci daal ay ñaar wala ñett boobaa dinañ mën a am chance ba rek man mais boo faa booy faase boo ci benn benn jëloo ci kenn bëgg dem fee ani kon day jafe quoi pour mu bëreeg yow mhm. te gars yi duñ ko nangu mhm. duñ ko nangu su ma ko jëloon tamit da ngay dem ba ci biir gars yi ne doo ko bëre mhm. ndax jëluñu ci suñu booy kenn gis nga fëgale bu muy bëreeg moom dafa ñëw daan soose daan zàlloo numéro 2 ma ne ko balaa moo yegg feneen kaay mu cofaale ma ci la ma ci la ma cof ma jël tànk bi wundeeloog moom ba tey jàkkaar nii 100 ba nga tibbee tànk ba yaa ngi yaa ngi gis 100 eh, mètres. ba ma jëlee tànk da wëndeelu. ci kaw ba ma jógee 100 laa jàkkaarloo. xam nga di jaar nekk yëpp moo la kera waaru na daa mel ni. non ba tey tojul nen bi xam nen nen da nga a toj ba pare at bi war a tiire. waaw moom ba ma fekk na ko ko nee. mu yaakaar ne mu andi ko mu nii mu yaakaar ne nen matul ak moom. mais façon bëre boobu mooy ban bëre bi nga bëre ak fëgal ak. kooku lit au ko lutte au sol xam nga bëri dafa am solo ci ñu koy jàng ci ñu koy waxtaanee et puis di ko wax doomu aadama ñu mën ko comprendre parce que xam nga Ndongo Lo way na ko. waaw walyaane mi ñuy wax léegi. mbër daan xëy di walyaan. waaw xam nga boo demee fenn boo boo daanu sax kenn du ko yëg. boo bëggee nekk mbër da nga jógee fii dem ci biir ci ci làmb jële def fa ay ay ay ay ay ay combat yu neex boo daanoo doo ko yëg. moo tax ñu naan ñu ñooy wàllu yaan ku wàllu yaan da ngay daan mbaa daan la bu la daanee kenn du ko yëg mais làmb penc boo fa ñëwee boo daanoo ñëpp yëg ko waaw moo tax mbër lee far làqatu ji bëri ji voilà loolu ci làmb lañ ko fekk <laughs> mais Adama Diouf la wax ci moom seen combat Adama Diouf genre bu baax tamit Adama Diouf xam nga man Adama Diouf daan na Mbay daan wulli mais ba tey war naa ko mën a jox moom sens waaw waaye bërikat la ay na ci ku mu yee ku nuur ci say tànk de. non maag moom ñoo bokk tànk yi xanaa ñu ko jógu njëkkante ko rek mais du ma ko bàyyi mu njëkk ñëw man xam naa naa dem ma la rek comme ay gars na dafa daal di nekk bëri na daal. liiru loo wax ci liiru. ah liiru kañ bàyyi naa ko. lu tax ba liiru. kii bon non liiru dañ taxaw suñu combat <laughs> suñu taxaw. waaw suñu combat taxaw may calculer dem lépp bitig yi nekk ci koñ bu yëpp ku ne man lépp la 10 di xaar avance bi jël bitig bu ne ma ne la avance bi léegi mu ñëw. mu dégg moo na komba ak ak ak ak liiru jaan rek. ak wuli rek. mu teel a daw bàyyi sunu promoteur ba daw. toppi moo géet moo géet jox ay millions man ma toog di xaar yàlla ndax moom war ga ma war foofu moo tax du ma gaaw a bëri moom. foog mu hmm. fay bor bi day day fay bor bi. Hmm. bor bi foog mu fay ko wala ñu fayal ko ah mais tamit combat boo xam ne la ma fay fee dafa bari moom xam na loolu sax liiru xam na ne moom mooy loolu. te te kii nee na bëgg na ko ki mu tudd kii mu tudd uh, Dieye. Dieye ah, kay seen bëgg na boobu combat. gis naa ko stade fii mu ne bëgg naa loolu. Dieye bu ko waxee da koy def moom. ah non Dieye moom ci gaawaay Dieye moom ma ma moom ba mars ci leen. Dieye boo d'accord liiru d'accord ci yéen ñaar lay lay yéexi. waaw mais dama gëj a gis ay millions nag te liiru moo naa ne man bëri na gàllaaj trop te ay millions lay laaj. te liiru daa bëri ñu ne ci ginnaawam léegi. waaw tamit ngay dina moom moo koy jiital moo koy yaatal moom may sax sunguf <laughs> Balla moom moom dafa bëgg ay dafa bëgg dafa bëgg écrim quoi xam nga boo nekkee nit bari la dafa bëgg écrim dafa bëgg ay booyam et bëgg ambiance yal na ko yàlla defal jàmm et defal ñëpp jàmm daal boo bëggee Babacar Babacar àdduna teranga rek la lamb ji ñoo ko moom gis nga làmb ji buñ ko neexalee mu neexu gis nga euh, làmb xam lu ko yor ndaw rab bi na ko yor waaw taaxuraan bàkku ak gumbe looloo cosaanu lamb leneen loo fa andi ay fecc ak ay yëpp di affaire lamb am kon euh, euh, xaw ma euh, chorégraphie. defee ko spectacle chorégraphe day ànd ak ay musique mais ñun ñun li ñu war a def ci làmb ay musique ñoo ñu ko defal ay musiciens ñoo ko ñëw way ko mais xam nga tamit bu bu bu signature bu mag amoon. di di nga gis titi wala nga gis benn waykat mag ñu jox ko mu way baax na ci loolu baax na ci ndax day xumbal waaye juróom-ñaari ndeer tëgg la tiim la nga takk ay sër nee si laali jaa biri tënnee lu ngeen xool. li fi xew ci làmb ëpp ma ne leen leemu lam dumbaan ci wax leen ñu xam làmb dafa nekkoon ñi fi nekkoon daaw ñu andiwaat leen ñu xam leen njugo ci ndégalum wax bilaay suma màggatee ba toll ci loolu maam góor gi njaay bàyyi làmb xamuñu ko de xam nga lu tax ma loolu mi ngi tàggoo ne bilaay suma màggatee ba toll ca loolu mm. waxu ko de danañ junj maam góor gi njaay bay làmb ñu mel ni ku ñun saf xorom bari bari saa ñu wax ñëpp kontaan loolu dafa ci fe ne mag mag daal du gune mm-hmm. kon tàggoo nee na ma mag la te mm. nekkul gune kon xale yi mën nañ ko mën a furni làmb dafa am yoon te gaa yi war jël ñu yoon làmb teg ko fee làmb ji li fi am culture bi man gis suma ko. maanaam dafa bëgg a moo dee. làmb tuus mu sax. non xam nga tuus mu sax wuraj kii kii sa kii kii sa boobu euh, bu ko tafaagee daan dugg si. Hmm. wala giri Bordeaux ba daan daan ko dugg si wala beneen ba di ko dugg si da ngay dégg mbëng-mbëng ni ñuy riiree. cuwal ma di riir sa xol sedd guy. mais léegi jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag <laughs> gu taraatagul. <laughs> gu taraatagul mooy lan kooku day man xaw ma. <laughs> yi bëri mënu na la ñuy duggee daal spectacle mais tous mu sax. mën bëgg ma nekk ca kanam. bi naan wura jag jag wura jag beneen bi naan càng càng kenn du fi de géej gi nga naan law la ca law la xel law la bët géej gi law la law la xel xam nga yooyu uh-huh. c'est la culture uh-huh. man ay jamono su ma yëkkatee sama sengoor boo jógul tàccu sa ndigg dina métti 4 jours hmm. waaw soo jaar tàcc. non mun mun mun ñàkk ndax làmb la. dafa neex ñun suñu culture dafa neex et puis li ñu ko bëgg ñun ñun mu ciy wax duñ doyal Babacar loo ma laaj ci làmb wax la ndax sama xarit nag da ngaa yàgg waaw. loolu laa lay bëgg <laughs> kon daal lamb léegi maanaam culture ba xale dañ koo yàq xale yi dinaa laaj tamit beneen fi ñuy jeexale mooy naam bër mbër yi léegi daa mel ni est-ce que du saal yi lañ gën a privilégié sa contact maanaam 5 heures jot nga yor nga takk sër dem euh, euh, écrit ba di contact ba 19 heures waaw waaw loolu moom am na ñu ko bëgg mais am na ñoo xam ne bëgguñu ko. contact lu muy may mbër. no contact kay mooy lépp contact kay mooy le li ñu naan complément alimentaire. mooy lépp mbër. Mm, waaw ci nga xamee déplacement yi ci ngay xamee dugg yi ci ngay xamee génn yi ci ngay xamee nu ñuy jàppee ci ngay xamee nu ñuy dóoree ci ngay xamee nu ñuy téye ngemb ci ngay xamee lépp mais mbër da ko teel na dafa métti. mbër mbër mbër mu dem géej daw yi. Mm. longue distance def ay saut ay mascarade dem saal yëkkati loolu mooy gën a yomb ci moom contact bi combat bi dëgg contact dëgg dëgg ko dee def xanaa moom combat bu intense mbëri foofu am na ñu ne contact boo yoo xamante ni ñoom chaque jour ñu ngi ci géej gi di contact mais mënu mais mënuñu am combat. mënuñu am combat ba euh, double moteur kër moo ko wens lu man lu manqué woon ca combat ba ñàkk contact feeñu fa. non finition de de la du double moteur jàpp na mais xamul lu mu war def. Hmm. waaw mais boo jàppee da ngay xool la ngay def mënoo nekk ponkal nekk xale bu ndaw jàpp boo jàppee da nga war a déedéet lan moo ko teree ah, moo xam xam ma gis naa ko ne jël tànk bi. waaw teg ko fii. mais amul finition bi ndax booy bi ñoom ci seen seen seen seen travail tànk la ay mënu ma daan sama tànk ay loolu du làmb. Mhm. bu jëlee si tànk noo ko ci mën a daanee. Mhm. man da nga jël sama tànk ma daan la ci. nga wër ma ndoom ma daan la ci. kon bëree da koy xam da ngay jàngi. Mhm. coince nag góorgóor il a tout fait bëri na façon ba vidéo mais xam nga kuy bëri ak kii bañ mu mu mënuñoo ànd. bu bëree ci bëre bu fekkee ne koyante fu bëree jël tànk du moteur du ma ko créé rof loxo bi ci gémb lu jox ko tànk bi jéem ko jojolal dara mën naa feeñ mais boo bàyyee tànk bi moom rek koo xamante ni mbëru tànk mënoo ko daan ci tànk déedéet bu fekkee mbëru tànk la doo ko daan ci tànk ndax loolu moom da koy bëgg mhm. moom moom lay fawee moom entraînement sax bu bëree ba sonn moom la lay jox waaw waaw waaw mais bu fekkee sama genre nga doo ma ko jox. ndax daba xam fu ma koy jëlee ak fu ma koy teg. fi nga koy teg <laughs> maanaam boo ko jëlee am foo koy teg. waaw da am foo koy jëlee am foo koy teg. mais quelque tànk ni mu jëlee tànk bi. daa wéeru. te booy bi da ko xaw a kal noonu bu joxe mën na bu juumoon tuuti mën na mën na daanu. moo tax tànk fam ni ñu koy jëlee. boo ko jëlee da ngay siggi doo bi day mel ni doo muus. da ngay tànk ba noonu nokk taxaw. déglu ko mais am na loo xam ne boo ko doxalee rek moomatu ma nga ñàkk combat mais combat combat bu rëy la ñu waroon bëre stade bi am mais Quench na Double xëy na ñoom li nii la ko dog yàlla dogalee woon quoi noonu yàlla dogaloon mais nag waroon na a neex noonu waroon a neex noonu waaw Tafatine am na ñu ne Tafatine xeex bi la gën a miser mais ne Boy Niang bëre bi waaw mais mais xam nga lamb moom ñaaraam da ngay bàyyi kii bëre bi jël xeex bi wala euh, nga nga bàyyi ko xeex bi nga bàyyi ko bëri bi jël dóor yi mais mënoo jël ñaar yëpp. lu arrangé Tapha xeex. lu booy Boy door dóor daw jël. njool noonu ngay bëri moom. ndax Tapha Tine bu xeexee mënuñu koo jaar sàq su yoxosu ko. non xam nga Tapha njool la boo xam ne da nga yaakaar dafa af mais mën a tànk te mën na mbaar hmm. te Boy Niang mbaar daanu ko. mbaar daanul ne Niang ah nee na mbaar mu génn ca ruq ba ruq ba gaa yi jaar. xam nañ ñoo ma ko gën a xam. fa ma jaar ba ñëpp xam ne foofu la yoon la <laughs> yoon boobu boo ñaa mën dafa jaar mais bu fa jaaree na sóor teq ba. Ah. waaw waaw waaw waaw waaw. mais booy ñaa ngi itam bu xeexee bu comme xeex xeex jël mbaa bu jëlee bu diisee est ce que nag. booy ñaa xeex ak avantage euh, du avantage am. Hmm. ndax moo ko sut sa loxo bu mënul jóg ba ci kaw si ki mu tafaatin yow kon na ngay tëb te boo tëbee bu la jëlee doo sa dara mbër mi tëb moom baaxul ci làmb moom bis boo tëbee ba mu dajeeg yow benn tànk mënul waaw kon kon xam nga ñoom ñaar seen combat dafa xaw a jaxasoo ndax njool ak la gudd ma gudd gàtt ma gàtt boo ñaa mën a taxaw ba jeex tol jot tafaatin tafaatin mën a tax tafaat dafa wax gudd ma gudd ma gàtt wala dajee saay wàcc bëri boo ñaa ko ko boo ñibbee di nga am waaw dafa laaj gudd ma gudd gàtt ma gàtt ci bëri waaw waaw ci bëri ci ci kii mais combat boobu du doon bi yàgg la waaw te boo ñaa naa ne def tout ba dem